Salam Ndiaye am na ñuy naan que sonkorisation bi dañ ko war a arrêté Salam Salam am na ñuy naan que sonkorisation bi dañ ko war a mais xam leen ni sonkorisation bi mu def effet bu baax fi nga xamante ne mooy Linguère fi nga xamante ne mooy préfet départemental Linguère dafa suspendre lépp luy marche maanaam navétane parce que nee nañ loolu ñi koy def tey indi trouble à l'ordre public laa turu laa noon di public mais turu Sonko bi ñuy dégg ci nawetaan yi moo leen neexul gars fi ngeen nekk continuer leen sonkorisation bi mi ngi def effet xool leen keroog bi ñu demee woon France di jouer. libéré Sonko xale yi dañoo sonkorisé sonkorisé ba média internationaux yi ci ëllëg ñëpp ñu ngi siy ñuy gis ak kan mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko li ñoo jàppoon ne buñ ko jàppee dinañ ko fàtte te xamuñu dañoo gën a yokku notoriété gars yi na woon fa woon Sonko disation bi na gën a takkaat maas wasalaam